ñaar yi Gambie la c'est bon. ma ñëw grand c'est bon xam ngeen mooy leen awe ba am ah xoola xoola xoola xoola xoola xoola di nga ci tax ababa ababa mooy boobu day ñëw ñëw ah ah ah ah ah, ah. ah, ah. yéen ñëpp ngeen bañ ku ñëw jox la xaalis jox la xaalis pour dugg bañal yéen amu leen droit xaalis attention c'est bon bii tamit ñoom ñaar benn déedéet ñoom ñaar plus bii waaye bii kenn du ko dugal ci poche dañ koy takk boo gisee waaw ah, takk na ko yor na bii na dugg bii kese du dugg bii kese du dugg c'est bon. waaw léegi xaaral xaaral léegi léegi léegi xoolal yéen ñëpp dañ leen di joxal takkal leen yéen ngeen taxaw yéen ñëpp dañ leen di jox taxaw leen xoolal mer leen mer leen mer leen déglu xoolal maanaam xoolal yéen ñëpp mer leen mu ne reetaan déedéet. voilà voilà voilà voilà ababa xaar yéen jàngal eh ababa moomu. xaaral eh eh nga sóoraale ababa moo moom yéen. sóoraale presse bi dama leen laaj ababa moo leen moom yéen. ababa moo la moom ababa moo moom amul. xoolal xoolal nañ leen jox ngeen. ah. dafa am numéro un deux trois. donc boo gisee un deux trois. bu fekkee fii la bàyyi ma. Jamaïcain bis bi yàlla na si am. deux. Ah, ah. trois. ñoom kenn leen romb di déedéet ah ay muuma ñooy taxaw ci ñooy taxaw fii. mais ngeen de. waaw mais Lamine Samba lii ma Samba. ah waaw bii tamit même chose même chose bii tamit bii tamit même chose même chose. bii mooy. bii tamit dix mille la un deux trois fii lay jaar. dix mille dix mille dix mille fii lay jaar. léegi jàmm waaw d'accord. bii. am ci loxoom. beneen mooy bii ah. mooy cinquante mille. bii kese. Ah, ah. bii kese. foofu. ñaar yi. ah. ah, ah ñaari yi ñaar yi ah ma ñëw gën a ah, ah. bu gis ngeen ko bu baax ah ah, ah. plus bii hmm. bii kese bii kese ñoom ñaar attention attention ababa foofu lii tamit benn benn lii kese lii kese c'est pas bon. dinañ leen jox ngeen naan yéen ñëpp bu ngeen di dem dinañ leen jox xaalis waaye ni ngeen taxaw mer leen mer mer. Lamine dimbali presse bi Lamine. dégg ngeen yéen ñëpp xoolal. benn nit benn nit ngeen di déglu mooy kii man su ma ñëwee bañ leen man laa man su ma ñëwee bañ leen benn nit ngeen di déglu mooy kii yéen ñëpp kii patron bi kii la voilà yéen ñëpp xool leen xool leen xool leen pour ñu xàmmee ko xool leen ko dafa gàtt nag yéen ñëpp xool leen ko kii waaw ndaw sànq koy xool moom dafa gàtt nag waaw prix bi xaaral ah, ah, xaaral xam naa la prix bi ñaata la